dajale dégg nanu ñu boole yaa ngi ñi rek a joo sekku nettali dañuy beccali soog di fàtt bu ñu yegsee Saalum nag seeti woon nañu rekk góor gi fay góor gi fay nag moom moo ñuy xamal cosaanu Kaolack waliyu waliyu waliyu waliyu Kaolack li ma xam ci Kaolack nekkuloon dëkk bu mag ay quartier fi nekkoon ci gën a rëy di wax jàmm gën Kaolack bi jàmm gën nekkee mu lakk-lakk gu rëy bi mu lakkee nit ña toxu fa sànc fa Kaolack ñu ne mu ngi ci kaw lakk ga Kaolack mu nga jóge ci kaw lakk fi ñu lakk ñu dem dëkk ca kaw lakk ga mu àndi kaw lakk am na ñu naan dafa naan dafa dafa xaw a lax daagal non non pas ça mu nga dem dëkk ca kaw lakk ga mu andi tur wi ku la wax leneen du luulu kaw lax nag histoire yi kese la waxi kese la fi mag ci kaw lax mooy Ndorong séeréer yee ko njëkk a moom mooy ca Touba Kaolack fële Touba Kaolack ñu tuddee ko Ndorong comme Ndorong fu njuuñ après moom ndangaan li ndangaan ñoomen kii ñoo ko ñoo ko ñoo ko kii dañ daan ay saisonnier lañu kaa yi ndangaan it ndangaan ci waxi séeréer la waaw eh, dëkk feek eh, famille bu yàgg fami famille sant jaane ñoo ko sanc ñoo ko njëkk a dëkk jóge Koutal Koutal derrière Kaolack après le pont noir dëkk fa ñii ñëw nag fu nekk di jóge fu nekk amul xeet yu moo fi njëkk amul xeet wala moo fi njëkk ñu bokk lépp liggante bàyyil ma ñu bëgg lépp lu medyo man yang may garo na kuhulo man ayaw lilaton banli turu Ngoné Souleye mu ngi bàyyi ci bi ñu sosee dëkk bi de ci ñetteelu chef de village bi ndax ci la tur dëkk Ngoné Souleye bi ñëwee ci la Souleye bi ñëwee waaye ca commencement ba Ngoné rek la Omar Mbow moo njëkk sanc dëkk bi Mbowen turu sant la ñu sant Mbow ñoo ko sañc ñu sant Mbow ñoo ko sanc moo tax ñu tuddee ko Mbowen ñi sant Mbow ñoo fa dëkk mooy Mbowen ay wolof wolofu Saalum Saalum ñoo fi nekk ñoom rek ñoo fi fii ci dëkk bi moom diina benn la fi mooy islaam lañ topp Tijaan mooy suñ tariixa Cheikh Ibrahima Niass ñu seen bu kaw Medina mooy suñu wasila dëkk bi yëpp nag li ñu gën a seetlu nag dëkk bi dimbowen Mbowen am nañu jafe-jafe ndox lool ndaxte nag seen forage bi baaxul waaye tamit nag bu ñu seetee ay teen lañuy ñuy gën a jëfandikoo mooy ndoxum teen kon te xam ngeen nag ndox moom dafa am utilité ci doomu aadama waaye ñoom ñu ngi jànkonteel jafe-jafe yu mettee métti euh, ci li nga xamante ne moom mooy ndox mi. Ah, ñu koy doon waxee léegi dëkk bi problème toujours moom mos a nekk problème ndox. bu gisee teen bi sax teen bi yàggul mais at mu jotaan ñu am teen teen bi bu demee mu ngacc toogal nañ ba nag suñ maam yi ak suñ papa yi 1935 1940 la ñu wax di leen ndox jaaxale ñuy bàyyi ñes ñëw fi takkusaan parce que bu julliwaan tisbaar Kossy fi lay jullee si takkusaan bu paa yi laaj leen ñaanal la ñu ne ko bàyyi dañ bëgg nga ñaanal ñu am ndox parce que ndox nekk na suñu ite bàyyi nag xam kañ lay doon. xama kañ lay doon waaye Mboyeen gi dëkk Cheikh Ahmed Tidiane dina toog ba dëkk yi leen wër yëpp di root si noonu lañ def ba 1986 Caritas Caritas Sénégal ñëw gasal ñu teen ñetti forage la def benn bi mu njëkk a def daf ko kaste dafa am suuf mu def deuxième forage mu am ndox mu bariwul mu nekk ndox mu neex ñu réserver ko maraîchage bi mu def troisième forage deuxième forage bi 35 mètres la mu def troisième forage 410 mètres mooy kii bi ngeen di gis côté bële donc suñ problème yi rab yi jur yi ngeen di gis fii am nañ nag yu nekk ci àll bi ñu mais fu mu nekk mbaam yi at fas yi ñoo ñëw